ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu ko ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yëg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou Rahman di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yëpp bu fekkee da nga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkani yi kër yu fly yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman nooy seet ak. ñu ngi sant yàlla bu baax di jiw sant bi di gërëm a baax di nuyu fi ñu fekk nii muy góor yombul muy jàmbaar ju nangoo liggéey bëgg lu baax te nangoo def lu baax ndax man tey laa bi soog a ñëw ànd sama doom day macca ñoo fekk suñu grand léeru mais wax dëgg yàlla ma ñëwee muy taalibe Cheikh ba noppi ne safar safar gu toll nii yoo na am yàlla suñu borom ful ko dafay ko dafa ko aw ak ay xéewal yaatu yaatu ba li mu bëgg si liggéeyam bi suñ borom may ko si lu kawe njortam wax dëgg yàlla lii kawe na lool te waaye na lépp benn la ndax moo nag see bañ a fekk bu ko neexoon mais sànq fee mi seede daal ne loo def mu yokk mu jig la daal doo ko ba kon nag Serigne Touba bi tax muy def yàlla ko ko defal ay yiwu yaatooyo ak i xéewal sotti ko ko si barabam yëpp incha allah. ok mais temps yi tamit seen géejawaay gi yëngu na de. yënguwul mooy que ni wax ay mbalitu nit dong lañ ay sagar yoo xam tekki wuñ dara lima ma ci wax sax man du ma sax so ma na parce que lima ci wax na ko ci ma ngi deg ñuy wax nak mais Serigne Saliou xam ne gisaguma si kenn te mënaguma leen te xama nga jóoruñ ma wëri mais wallahi ko ma ci dajal di nga di nga wax di nga wax li ngay wax foko tek man loolu la soxla man nak mais est-ce que yow lañ waxal. sa way ñi wax sama kilifa lañ te bu doon luñ def la man duma bañ. mo Aziz Ndiaye ño bokk ben dret muy sama mak man duma mbeur ma waxaat ko non damay ñëw fi may wax du ma mbër sonn ma ci laamu dafa ma daal heure bu ñu tëggee jël seen combat yi mag dugal ma ci fay ma xaalis bu bare bëri seen yaay ak sama yaay la seen baay ak sama baay muy maak ñoom kon man am naa mi droit défense sama ay mag te amuñ jotu ñii te nag mënuñoo liggéey li ñu liggéey Sénégal gi liggéey ko ci làmb ji ñu nekk bu ñu ñëwaatee la ñëpp xam ne làmb nga wax dafa doy waat ndax te boo waxee daa nga ko wante moom du déglu wax ji lépp day déglu si wax rek ñu dagg ko yónnee ko mu jàpp daa ah, xam ne Aziz Ndiaye bett na ma wala Balla te li ñuy wax teguñu ko fenn ndax tay lima ci wax ah famille dafa jegante famille deret maa rak nga bëgg a dugg mag rak ji na défet mag ji am victoire tax nga bëgg a ñëw di wax wax joxon comme si que Balla gay dafa am problème sadjé da ko yéenew da loolu nag su ma Sa Thiès maay arrêté ko xamal tax parce que bu mu nangu kenn takalé ko magam ko ndax ku soñoon am mag ju mel ne Balla gay ndax Balla gay dafa ñëw fekk fi dara fekk amul kër am kër am fekk fi kër fekk fi dara mu tak ndigam rayante rayante ba am kër dugal la si dugal si sanday dugal la si dugal la si boppam dugal si ay rakkam loolu kon wàcce na Sa Thiès foofu coono Sa Thiès takk ndigam nag di góorgóorlu moom it kon tey jii dafa war moom li ñuy def nii moom moo ko war a def moom moo sa robu avocat défense Balla Gaye ndax mag joo am ne mel na Balla Gaye man de su ma ko amoon sama junniy loxo laa koy téye dinaa ko téye ba abbu ay loxo téye la ko giri dëng nii gis nga ko ëmbee lu xewle lu giri Bordeaux xewle woo luñ tuubal giri Bordeaux doo dégg giri Bordeaux giri dëng ngay dégg kon gën a yuy jóg di saboté sa bëgg laa gëm kenn mënu la yëkëti bëgg wacc wàcce Balla Gaye ku ko wax waxul dëgg ni day yëkëti Balla ba ah, boo la ànd la yëkëti té man suma sama mak soñu yëkëti bo boo yëkëti wala nga boo ñu wàcce rek waye do mo tagri ba xas mak duma ko mangul ku yalla bint kon mom la juk wax ak boy ñu arrêté ko parce que ñu ko wutul ay non te jaruko preuve amu fi Sa ties day liggéey Balla Gaye day liggéey ñu dëkk dëkk war fa di ay mag rak isamul no Sa ties dafa amoon combat Balla Gaye ne combat ñom ñaan ñu ku ne ci sa combat kon lan mooy nday ay diw daa ñu andi taxi bu mais bu otom paane wala xayitam benn Balla Gaye moo ko oto Balla Gaye est fi est-ce que moom na Balla na xam naa soxla oto otom moo paan n'est-ce pas mu jël taxi dem xaa mu yóbbu ma moom moo yàqamti loolu daa jar détail nga yàq der ma ne ki ki tabax kër ba mu mu nekkal euh, ngeen nekk fa si jàmm ak salaam am na problème mu jox la oto bu la yóbbu signé contrat nañu arrêté yii ñuy def nii rafetul te ñu koy wax sax bu doon nuyoo tekki dara waruñu jëm fenn ñu mën a wax mais man li ma wax yéen de tekki nañ dara kay ma dañoo jàpp ne leen romb si du ah, ma seen morom kenn ñi musu jàkkaarloo su kenn si jàkkaarloo si gi xool ma xam nañ ma bu baax a baax wax ji na day bëgg a bëri sama côté ñoom may wax si wax ji dama ko dama koy arrêté li ñuy wax man wax naa ko jëfas des bu soobee yàlla naa ko jëf gi ñoom na nëbbatu gu métti gi nekkee barke tonne dem naa ko ñoom toog naa fa ñaari fan yu ma ko toog di ko yooyu mun ma kaa gis cinq tonnes barke Seydina Muhammad maa ngi koy ko ramassé bés di fekk ma sama ko repassé dama laa soxla mu lànk barke alxuraan ku ma si dëggal danaa la dum mais tamit boo leen dumaa est-ce que doo wàcc yoon yoon moom yoon moom mën nga ko ba duma leen est yoon moom ñom ñi wax leen neex so demee paré da nga jël li wax yobu ci yoon yoon atte man bañuma lool yoon ñëpp la fi dagal comme dañu reew wax na reew def lu mel def yoon yoon bo yu duñ ñu ñëpp attañ ci kàttanu yalla man ragaluma loolu toll na fofu ëpp nako wax dafa wax ju ñaaw da mu té li wax bu doon dafa am solo bu doon dëgg sax mais chaque jour yaay top ay wax détail détail détail détail dafa doy il faut arrêter quoi yoy man taxuma sa juk amul may wax ci ñom wax ci bari na torop ba magal Touba pnaa su ma leen Touba na lum cinq tonnes màggal daa dem ba ko ñom moom dafa war a góor li li muy proposé nit ñi ak li muy imposé nit ñi lu war a jëmale si boppam la barki dem yaa ngi toog fi mu naan daa teggi na te 40 mu baal ma si kàddu yow sa yaay Touba fee di fóot ay ay fóot 1500 sumu 1500 li jënti wooloo bàkk Serigne Saliou Mbacke bëggu may wax damay la juddle xam leen xam nga barki dem génn naa am na doom yow gëmoo ko ne la Bébé Elton mënoo mu liiru jaar la yow gëmoo ko fi ñu toog nii di wax na ku ne fi ñëw saka nee naa la Bébé Elton moroomu Lirou Diane la. moroomu Lirou Diane. barke Serigne Saliou ci dama la wax sank ci ay nga weddi ko nit taxul fekk lu fi nga tok legui ni ne la maa mom moom ñoo maase ko xam nga moroomu liru Diane kon waaw kon xam nga ko moroomu Lirou Diane la mayeen am na doom gëmoo ko woon kii nee na mu ñëw nee dom euh, man na la ñaareel kon mu ranta fokk ñu xam ñu université euh 5 tonnes dom bebel Elton man na ñaaral yow legui 5 ton ni ma ko mu nekk Dakar gi wori coggo ko wayan di nan daa teggi natt quarante millions no dem outal yaam fum nek ta fat ko to yor ko mo gën ba tuba ge mu wodi fot fóot na trop barke alquran maa ngi ñoo juddoondoo yaroon no ñaaw lu ñaaw lay wax ni nga ko xamalee nit ñi ba wax ñun da nga xam lu gëna a gën ka metti te buñ jiitee sagu nan liggéeyu nday liggéeyu nday yow yow lu la sa nday liggéeyal ni ngay xass ni seen dañuy liggéey ñom ñoo tedd yalla teral leen di nga tëgg diw nak du force man ma ngi ni alburax fala bok dama am combat waaw daa tax man dama damaa am combat force ma ci amul. keneen ak arme arme armée ma sax am wa man dama am est-ce tax na ma wax lu ñaw kon aziz sax wala nga ñew kon Aziz sax lay xex parce que jox na ñepp wala wala kon xaa Aziz may xeex legi léegi du nonu c'est que lu ñor tabbi lu ñor tabbi Lele léeg da lay gëna jublu nga mën ko teug da mbeur moom teug ko day facile ci yow. ana ko tey boko ko bëggoon tey Alioune mo mu ngi wax li pour alburax teug ko c'est difficile. parce que ñi ko yor ak alburax te menacer bi la yor wala promoteur fi ngay bok bokk liggéeyu ndawar dëkk liggéeyu ñom ñaar. mais Alioune sey nak bokul ci ben structure. pour ñu tëgg ko lan Ndiaye moko yor man bu ma nax wax di wax di laq keul keul këll lan Ndiaye pour nga tëgg Alioune sey de c'est difficile. ndax lan ko da Alioune sey jander ko mu je tëgg. difficile waxuma jander jander du alburax mo ranta he ya ma gëna a xam ne Abdoulaye Ndiaye mbërëm nga tëgg ko pour alburax sax difficile. yan bu diis man bama ko utal premier combat mako do doon ut Abdoulaye Ndiaye ko yor bama beugé kanji kañ ko c'est difficile dama ci sonu aban disqualifié ko si làmb taxaw na ci man man la man ma wax man Abdoulaye Ndiaye moo ma man ma wax bëgg mo wona tuddu ablan Abdoulaye mais dama ko dara kilifa la suma way waaye am na jaar teewoon sama licence bëgg waxuma ko pour lu ñaaw mais dafa am ko xam bu la yoré ak promoteur bi pour ñu liggéeyuñ mi ngi mel tay fallu Fallou bëgg dëgg ablan Ndiaye loolu yool yombul non la demee pour nit ñi xamul ñu xamné ne promoteur bëgg combat bi mais ki lay yor manager ak mom mënu ñoo liggéey kanji bi mu bëggee dëgg yeen bu ak ablan Ndiaye c'est difficile fallu ndjay mbeureum promoteur pour mu teug mbeureu Abdoulaye ndjay c'est difficile kon buñ dof dof lu xam nañ lan moo ne ci bir lamb kon buñ andi jax Alioune Seye 2 Alioune Seye ndjay amuñ problème la dagay Guiers ndjay amuñ problème parce que la dagay waxna wax ndjay Aziz Ndiaye wax na ko Tapha Tine mi ba gi dem nee na cinq combats yi mujj combat bu ku ma teug yek na sama alal jox kon ñom ñoy nañ génn xam nañ la mbëri boy ndaw yi di wax buñ yàq sama digënté ak diw parce que ñu ngi sét suñu jamm jàmm wuñ dara mënu ñoo yàq kenn yaay wax ba yàqu sét te ñom géej waa ngi leen di wër bébé ngoom tarki ndaa yaa ngi koy wër nañ bàyyi seen caaxaan yi barke sëñ Fall danañ dinañ jël coup perdu boo duñu xam fu ñu ko jëlee ndax ana boo yoon sama kalaagi sax dañuy lisut mën nañoo wax normal mais am na ñoo xam si ni xamuñ fuñ ne buñ la rombee suñ lay noq ba la duñ ko doo ko doo ko yëg loolu laa amoon la ma si wax jërëjëf kooku mooy Lirou Diane ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokki kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy waar mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu ko ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yegg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou Rahman di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yépp bu fekkee da am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkane yi kër yu noflaay yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman